jangeen jëf jangeen jëf mbokk ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bisimilah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës te ñu am yéen ay faram-fàcce ko diwaanu Njaareem yëngu na ci suba tey jilee Euh, sëriñu daara ya nekkee foofa ci diwaan ba ñoo ànd ak seen i ndongo wàcc ci mbedd mi di ñaawlu taxawaayu lenn ci ëttu yëglekaay yi ñu ne dañ leen a yónni euh, ngir ñu gàkkal deru islam euh, nguur gi nag rawatina njiité réew Macky Sall lañ sàkku mu wax si wa ilaakat ñoom daañu ko fajal seen bopp ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne nii moom lañ ci indi juróomi fan ci weeru octobre lañu ko jàppoon mooy te moo di bëccëg bi nga xam ne nii moom lañ jagleel ñii di jàngalekat yi àdduna gépp di koy màggal waaye suñu réew nag di suñu gaal tey ji ci alxames ji la ñuy mujjee màggal bés bile ñu koy mandargale ak am ndaje mu yaatu mu ñuy amal ci njiital Serigne Mbaye Thiam mi jëwri ji nga xam moom la ñu dénk wàllu mi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 xibaar yi dañu koy doore ak xibaar bu tiis wi nga xam ne nii daanaka dafa tàbbi eh, ci ëttu eh, eh, taskatu xibaar yi te mooy génn ko àdduna ki nga xam ne nii moom moo di Samba Laobé Dieng ab taskatu xibaar la woon ñu ràññee ko woon ci kër gii di RTS doon fa liggéeyee moom nag nee nañu mujjee na wuy ji boromam niki tey ji si alxames ji amoon na nag juróom benn fukki at ak juróom-ñaar dëgg la feebar moom bu téew rek rey borom fan yi ñu génn rek doon nañ ko dégg muy mettitlu jafe-jafe yi nga xam mu ngi koy doon dund ci li nga xam moom moo di feebaram jooje feebar sooy boobee sax moo ko mujjee yóbbu bar sax euh, moom Samba Laobé Dia kon nee nañu mu nga faatoo fële ci hôpital principal bu Dakar euh, lu jëm nag ci xibaar bi incha allah rabbi euh, daañu ci dellu siwaat ci sunu yeneen i jotaayu xibaar. wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi diwaanu njaar Njaareem yëngu na ci suba tey jilee ñi nga xam ne ay sëriñu daara lañu ñoo ànd ak seen ndongo. wàcc ci mbedd mi di ñaawlu taxawaay lenn ci ëttu eh, taskatu xibaar yi ne eh, dafa am ñu leen yónni ngir ñu gàkkal deru l'islam gàkkal deru daara eh, waaye nag loolu duñu ko bàyyi mu jàll nguur gi rawatina njiital réew Macky Sall la ñu sàkku mu wax si lu ko mooy kat ñoom daañu ko fajal seen bopp lu jëm sax ci xibaar boobee ñu ngi may xamal ne yembagul daan ci dellu sax incha allah rabbi laataa xibaar yi di jeex Euh, bu dee nag dafa am ñu jóg ngir gàkkal deru daara am na ñeneen ñoo xam ne nii dañoo gàddu daal seen i njàmpe fa yéene ragg daara ba mu set wecc Euh, ñooñu nag bokk na ci mouvement pour la solidarité de entre enfants euh, lañ leen di wax dañoo jël ay ndimbal yu takku takku euh, dimbalee ko seen morom ya nekkee fële ci liberté si di fa jàngat lii di alxuraan Sada Diallo nag mi njiital mouvement Sicap Debout moom la sax la ñuy bàyyeele xew woowee ñenn ci coom nag am nañ ci sax ay kàddu yu ñu ci rotal ñu teewlu leen ci micro soxna Fatou Bintou Diouf. ñu may xamal ne aussi élément yooyee ba tey yambagul dafa mel ni que dañu am ay jafe-jafe Euh, ci euh, ci machine bi euh, bamtuwaat rek su fekkente ne éléments yi yemb na rek ñu dikkaat si kon ñu déglu kàddu yooy nga xam yëkkati nañ ko ci micro soxna Fatou Bintou Diouf. noppeeguñu sax ci mbiru Thione Seck ñu déggati beneen affaire ci ay faux billets bi la yoon ab peur buy wuyoo ci Ngaaka Blindé moo ko doon doxantoo mbir bi la jur ti tàng. dellu si waat ci élément yooyee vox pop maanaam ay kàddu la yoo xam ne nii lenn ci ndàngaay ak mouvement bi nga xam mooy solidarité. entre enfants kon ñoom ñoo ko fésal euh, di ay kàddu yoo xam ne nii ñoo ngi ko def jëmale ko ci ndimbal loolu nga xam ne ko euh, daal di koy jëmale ci seeni moroom xale yi nga xam ne nekk fële ci liberté si di ay ndongo euh, di jàng kon ñu déglu ñenn ci ñoom ci micro soxna Fatou Bintou Diouf العلم والقرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بالحسبان xale yi la ñuy remercier ndax ñoom ñoo ñooy seen bopp ñoom ñoo am seen temps bu ñu ñëw rek daal di ne man ñun jubbiti di tekki ni ñuy def jiw nañ ci. man xale dañ ma inspiré parce que ak seen MSE bi dafa tax euh, ma ma organiser journée dépistage bu drépanocytose. ñoo am seen xalaat toog ne xale yu ñu gis ci mbedd yi ñu taxaw di yalwaan di sonn à la place ñun ñu mën dem yalwaanal yalwaanal leen c'est ça le concept. donc juste pour wax ni rek euh, ñun kenn giddee ñu woon lépp si ñun la jógee et que. ñoo ngi sollicité pour lii pour suñu morom ñu gis nii ñu jéem a ñoom am beneen xel jug si léegi jéem a def jéem a def comme ni ñu def pour jéem a Sénégal jëm kanam. sant xale yi parce que am na loo xam ne dafa jafe ay xale yoo xam ne ñoom ñoo jógal seen bopp ñoom ñoo décidé seen bokk ñu dañuy def association dañuy def solidarité c'est vrai que comme ni fi ki fi jógee léegi wax biñ koy wax départ la loo xam ne dañuy foo rek du mujj fenn. mais seen abnégation seen détermination bi ñu ko gisee laa xam ne xale yi kat faw ñu li ñu bëgg dinañ ko egg moo tax euh, tey dañu leen di gërëm parce que lii yombul parce que jamono yu nekk xam nañ société bi nu mu yàqoo valeur amatul repère amatul fu ñu demee ba gis ay xale yoo xam ne ni ñoom personnellement ñoo décidé def ay actes de solidarité vraiment mënul lu dul encouragé leen kon mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo kon ci waa mouvement solidarité di ay ndimbal yoo xam daal ñu ngi ko yëkkati woon daal di koy jagleel daal di koy jagleel kon seen moromu ndongo ya nekkee fële ca Liberté 6 juróomi fan ci weer octobre la ñu ko jàppoon te moo di bëccëg bi nga xam lu ñu jagleel jàngalekat yi le àdduna gépp doon koy màggal waaye suñu réew di suñu gàll tey jii ci alxames ji kon ci la ñu mujjee màggal bés boobule ñu koy màndargale nag ab ndaje mu yaatu muy Serigne Mbaye Thiam di amal jamono ji Euh, waaye waa SADEF doon benn ci kuréelu syndicat yi nekkee fii ci biir réew mi ñoom jël nañ dañoo jël dogal kon daal di dumooy ndaje mi ndax dañu jàpp ni euh, balaa nga ne da nga fay nekk mbay Sarr am na ci sax ay kàddu yu ci rotal xam naa dañ ci dell si incha allah rabbi ci suñu yeneen i jotaayu xibaar euh, bés bi nag doon occasion ñu daal di amal ab taxaw seetlu jëmale ko ci niveau élèves yi ñu bari si ñoom daanaka làqatuñu làqatuñu tubaab yóbbee nag jàngalekat ndongo way juru ndongo ba ci nguur gi kenn ku nekk joxoñ ah, kenn ku nekk di joxoñ sa morom ab baaraamu tuuma ne luy njig njaaga ñooma Roqaya Ndour wàccoon na ci mbedd mi jot ci dajeek ñenn ci ñoom ñu teewlu ko ci reportage. seetlu nañu ni fi mu toll nii ci wàllum njàng mi niveau élèves yi étudiants yi ba ci sax maîtres dafa wàññeeku bu baax a baax ñenn ci waajuru ndongo yi ñu tase di wax rek lan moo waral situation bi le dañuy dañu waroon diagnostiquer le problème. seen niveau baissé mooy man lu ma si gis. lu ma si gis mooy que xale yi duñ liir mais ñoom suñu war a liir di leen war a jox jox les moyens de la faire c'est vrai implanter des des des des des biblios enseignants yi c'est la formation parce que lu ñu leen former baaxul. et puis y a beneen beneen problème mooy que ñoom amatuñu motivation. parents yi dañu démissionner bon ni ñu démissionner mooy da ngay am sa doom. léegi temps bi muy passé à l'école euh, dafay bare léegi école bi dañuy jël xale bi huit heures ba journée continue journée continue bi xale bi du lekk ba suur parents yi du duñu xool nu ñuy passé seen journée à l'école duñ leen encadré du leen def dara ñu wax français biñ leen di jàngal à l'école parents yi dañuy xaw daw di wuti ay dépenses yooyu yëpp daf ci nekk c'est tout loolu moo tax te loolu mooy dem ba lycée dem ba terminal dem ba université jàngalekat bi ñu fekk ci école élémentaire xar yàlla di dëggal rek bu baax waajuru ndongo yi li ñu wax ne mooy firne la bésu niveau élèves yi. niveau mu lu tax mu beesee moom dafa bëri ay responsabilité élève bi am na ci wàllam parents d'élèves bi am na ci wàll état bi am na ci wàll enseignant bi am na ci wàll. la may wàll enseignant enseignant bi lu mooy dafa am lu ñuy wooyee moral professionnel éthique ak déontologie maanaam loo xam lii euh, mooy sa waaye sa diggante ak sa jàngal ak jàngale bi ngay dafa am loo xam ne yow miy maître yow lu lañ lay xaar boo nekkee sa classe ba tey rek nag jàngalekat bi def ci ab taxaw seetlu ne rek nguur gi daf ci war a indi ay saafara. nguur gi dafa war fexe ba classe yi doy maître yi doy nga xam ne bii léegi dootuñu amati ay classes yoo xam ne ay li ñu woowee ay classes double flux nga xam ne élèves dañuy bëri ba ñi dañuy xëy ñi di gont waaw. parent bi moom li ko war mooy doomam bu wàccee à chaque fois donc na koy surveiller ci kër ga di xool baax li mu def bi moom bu ñëwee na na may yar maître am ba bu toogee classe ñu mën koo jàngal ci jàngin mu neex mu nekk déglu yaru li ko wax mu koy def bu demee aussi exi ko jox mu def ko il muy liir bëri na ay jafe ba tax rek muy répercuté wu ci ndongo daara yi ak itamit grève yu bëri yi ñu nemmeeku ba nga xamante ni rek seeni heure yi ñuy def cours dafay wàññeeku bu baax a baax naka loolee itamit ñu gis ne rek jàngalekat yi tamit dañu démotivé woon ndax rek état bu Sénégal respecté wul benn engagement bu mu warloo ak ñoom njaareem la ñuy dellu ndax wax naa ko sànq diwaanu njaareem yëngu na kon ci suba tey jilee ñi nga xam ne ay sëriñu daara la ñu ñoo ànd ak seen i ndong wàcc ci mbedd mi di ñaawlu ah, taxawaayu taxawaayu lenn ci ëttu tasukaay xibaar yi ñu ne dafa am ñu leen yónni ngir ñu gàkkal deru islam gàkkal deru dara ah, nguur gi nag rawatina njiital réew Macky Sall la ñu sàkk mu wax si lu ko mooy kat ñoom daañu ko fajal seen bopp dañuy dem te njaareem fekk fu mu mburu Maxtar Sarr jàngalekatu arxuraan ak seeni taalibe yu nekkee ci Jurbel mere lool yenn ci ay organe de presse yu ñu ne dañoo yëkkati ay tuuma yu ñaaw amut tegul fenn teg ko ci seen der bi li ni mel nag ñu yëkkati seen kàddu naqarlu ko ba ci lool. tuuma ju rëy joo xam ne tegati nañ ko ci daara. ko dem ci journal boobu ñu wax l'observateur dañ ko ci gis. ku wax ne ab sëriñ daara la. ko ci wàllu ay dongaam yoo xam ne doo na leen sàkku ba ñu jàpp ko fii ci ñaari waaye dara laalul ci loola. maanaam waa ji dub sëriñ daara jàngalewul alxuraan waaye yiliful kenn itam. ngir naqar boo xam ne teg nañ ko ci suñ kaw muy tuuma juñ tuumaal lislaam tuumaal ko alxuraan tuumaal ko sëriñ daara yi rawat na njaareem. ndegam bindoon nañ ko ajjuma ci ngoon journal bi génn tey bindaat nañ ko ci te mi ngi nii kon dafa mel ni ak jublu la tooñ tooñ te fa suñoo deltu ginnaaw. buñ ko seqeeg daara yi nag bu soobee yàlla incha allahu dañ mu dellu ginnaaw ñoom jàngalekatu alxuraan ak seen i taalibe nee nañu dañoo seetlu ne cong gi ñuy cong daara di ko tuumaal lu bon saa su ne day gën di yokk te tegul fenn. te loolu njëkkewul ci tey waxoon nañu ci jamono ni dafa am ku ñu jàpp koo xam ne sëriñ sëriñu daara la muy jaay yàmba te doon der ba mu doon jàngale bañ ko vérifié kuy ràbb ay sër di ko jaay la waaye jàngalut kenn yëliful kenn. caaxaan faaxe dëgg des mbir mi moom dina jeex ci nii mbaa ci naa kàddu yooyu la sëriñ daara yi nekkee ci Jurbel tëjee nee nañu kat kilifa yi buñ ci jugul ñoom dinañu ko fajal seen bopp kiy yëngu ci njàng ak njàngaleem alxuraan duñu nangu benn yoon ñu bëgg koo jàppee morso fa berekaay tuuma yi ñuy teg daara yi ak deru ñaaw yi ak ñaawal gi ñuy ñaawal taalibe yi ak yi moo xam télévision la di théâtre wala di leneen lu man di doon loo xam ne luy ñaawal daar la képp ku ko defate dañ jàkkaarloo ak yow même président même ministre de l' intérieur ñu ngi koy wax ministre de l' intérieur moom ci boppam mi nga xam ne moo yëlif réew mi te yëlif ñëpp te kàddum na ci lépp na bàyyi loo xel nit ñi daare na bàyyi loo xel nit ñi information bi. li ma bëgg a wax mooy yëf yi dafa bari damaa bëgg mu damaa bëgg mu yem fi tey bis na ki tey Mouhamadou Mouhamed Ndiaye mi wax wax ji na fay attention tey suba joxe nañ ndigal ñu jàng six mille six cent euh, soixante six tabat yada ak ay wérd ak dog Lobsu TFM su ñu amee information bu jëm ci daara bu ñaaw ni koy traité rawatina Mamadou Mawène Ndiaye mel ni yow nekkoo doomu jugit bu war a jàng alxuraan mu ñu wax xooleen xale yi fi toog yëpp ak kilifa fi toog caaxaan dajewu leen fi daara nag nekkatul ku mu amul ndey ak ku mu am ndey pare na jël responsabilité am képp ko dagar ci kaw daara daal daa jaamaar ak yow. Touba Mbacké du Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walf eh, bu amee nekk ñuy dund ay jafe-jafe ñoom ñoo di béykatu gerte yi nekkee fële ca Latmingué ca Saloum ñetti ay bés gannaaw ba ñu ko ubbee ba fii daal gisuñu seen bopp ci campagne njaay ak njëndum gerte gi lee ñu nga jël seeni saaku riimale di xaar opérateur yi dikk waaye ba fii gisuñu kenn njiiti réew mag Sall la ñu sàkku mu jàppale leen eh, teggi taxes yi nga xam ni moom la teg chinois yi su ko defee ñu mën a dikk ci réew mi daal di jënd seen gerte gi lee Euh, dañuy dem ca Latmingué ci diwaanu Latmingué jànkuwanteeg ak ay jafe-jafe yu méttee métti gannaaw ba campagne bi ubbee ba léegi nee dërëm jaayaguñ ko ci seen i gerte yi la nga xamante ni ñooy opérateur yu war a jënd gerte gi saa su ne loxo yi neen lañ fay dikkee xam na Saloum crise mu ngi fii am xiif mu fi am parce que xiif paasiwul nga bëgg a jaay mënoo jaay te béykat jaay dundee la xam taxan jaaroo gerte gi jarul dara la jarul li mu mën a jaree mooy nga gàtt sa dem ci commerçant bi mu jënd la ko fanweer yore juróom nga dem sa yoon. nee nañ financé nañ waaye bu fekkee financé nañ yegg suul fii li fi nekk mooy da ngay indi sa gerte wóoluwoo sa kër nga yóbbu na leen dencal leen ma ñu jox la ay bon nga garde mooy ci sa koy. waaye lan moo tax Saloum ñoom ñu def leen comme ñoo xam ne ay ay ay bàyyi ma lañ loolu pour lan. ñoom béykat yi nga xamante ne ñu ngi dëkkee ci Saloum nga xamante ni nee nañ daanaka xiif gane si na leen ba fu mu toll nii du ñu dégg jaay seen gerte ñu ngi woote wàllu. xiif bi commencé na am xiif mi ngi commencé am parce que da ngay béy ba bëgg da ngay béy ba bi bëgg a jaay mënoo jaay bëgg a jënd ceeb mënoo jënd ceeb am na am seet yi ci ak am na ceet yu fomm sax da ngay jàpp ceet nekkoon na ci diggante bi da nga mën a jaay sa gerte doo mën a jaay sa gerte ceet ko fomm waaw loolu xëy na ordonnance kenn mënu ko jënd fi ne béykat yi yëpp fi ne képp ko am ordonnance mënoo ko jënd firdu yi nga xam ne ñoo jógee Kolda ñoo bàccaan ci fii ñu ngi ñu ngi sonal nit ñi pour fay seen xaalis parce que loolu tëkkute sax ñoom ñooñee ba tey nee nañ lenn rek moo mën a indi saafara ba soowee campagne bi at wii mooy ñu dindi taxi yi wala ñu wàññi ko ngir ku nekk mën a jënd si. gerte gi kër goo dugg ñu ngi ko riime kenn jaru lii moo ñu solal léegi nag état na ko xam dimbale askan wi dimbale jigéen ñi dimbale xale yi. kon ne leen yërëm ne leen yërëm parce que béykat amul pension retraite amul salaire amul dara ne leen yërëm ñu bàyyi suñu waay ñu jënd gerte gi suñu ñoo man ci gerte gi bii mënut dara ci gerte gi nañ ñu wàññi leen. nga neen wàññi taxi yi ou bien mu wàññi mu mu mu dindi taxi yëpp. parce que béykat yi sonn nañ ñaar fukki fan gannaaw ba ñu ubbee campagne commercialisation at mi béykat yu nekk ci Saloum ñoom ñëpp tiit ak jaaxle la ñu nekkee fi mu toll nii nga xam ne ragal nañ delluwaat ci bon impayé ci jamono ji nga xamante ni daanaka xiif gane si na leen Latmingué Alhassane Ba Abdoulaye Dia Walfadjri lu jëm ci taxe yooyu nga xam ne ni mu ngi toll woon kon ci juróom-ñetti dërëm njiitu réew Macky Sall kon jël na dogal kon daal di koy teggi ab dogal la boo xam ne ni mu ngi ko jël ci ndajem xellukaay jëwriñ mi ñu doon amal démb beneen dogal boo xam njiitu réew Macky Sall jël na ko ci daje moomee moo ngi jëm ci faux bi yile muy xaalis bu baaxul bi nga xam mu ngi wéy di gëwélu ci biir réew mi jël ko daal di ko tasaat ci biir réew mi ci ndajem nag xelikaay jëwriñ mi ñu doon amal démb ci alxar àllarba ji moom njiite réew Macky Sall kon sàkku na ci jëwriñ yi nga xam moom la ñuy dénk wàllu yoon ngir ñu xool daal daan yi nga xam moo ci aju ñu jéem a xool naka la ñu koy diselee ndax jàpp ne loolu kese moo fi mën a jëlee phénomène bi nga xam ne nii daanaka mi ngi bëgg a yàq réew mi rawatina kon ci biir soo bis bi lee kiñ ci mujjee jàpp moo di rapport bi di Ngaaka Blindé juróom benn million lépp di ay faux billets moom la ñu fekk ci biir euh, wotoom euh, lenn nag ci askan wi gis ni musique moo dundatul musique moo dundatul kon musiciens yi moo tax ñu bari si ñoom di jëfandikoo xaalis bu baaxul ngir daal mën cee génn euh, Fatou Bintou Diouf wàccoon ci mbedd mi dañu ceeg lenn ci askan wi ñu teewlu ko ci portage noppeguñu sax ci mbiru Thione Seck ñu déggati beneen affaire ci ay faux billets yoon ab rappeur buy wuyoo ci Ngaaka Blindé moo ko doon doxantoo mbir bi la jur ti tànge ci sénégalais yi. man daf may jaaxal léeg may xool ci seen télévision yi mm-hmm. léeg-léeg nit di jël xaalis yu bare di ko maye man damay tiit mm-hmm. parce que dama naan kii xaalis bi muy jël di ko joxe fan la ko war a mën jëlee donc. questionnement la boo xam ne vraiment ça laisse à désirer. et il n'est pas le seul. c'est lui qu'on a pris. vous comprenez c'est lui qu'on a pris mais a du moom rek si sama yaakaar dëgg la sax moom la ñu jàpp waaye yaakaar naa ni am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi si ginnaaw ndaxte Ngaaka Blindé ñëpp xam na ñi benn rappeur bu mag la et si sama xalaat daal dañoo war a amal ay lëñbët yu leer ngir mën a xam mbir mi nu mu demee. c'est pas simplement le le monsieur qu'on doit prendre qu'on doit suivre mais essayer d'enquêter sur euh, le sujet en question et approfondir qui sont derrière et pourquoi on fait ça. ñu coon sekk Ngaaka Blindé yi tamit ci wàllu musique lay dox milieu bi nag di bis doon yoon bu gën a yomb bu ñu mën a jaarale faux billets ña ñu dajeel di ko firndeel. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy borom tur yi ñoom la ñu gën a gis ne ñoom ñooy pratiquer euh, faux billets yi te loolu vraiment lu loo xam ne la lu baaxul ci suñu réew la. parce que c'est trop facile nga gis nit. taxaw woy nit mu génne ay billets yoo xam ne di ko joxe mais d'une manière boo xam ne mais loolu sax euh, ñàkk kersa la ak yàpp nit ñi te loolu vraiment euh, état bi nguur gi war nañ ci jóg taxaw ba nga xam ne képp koo xamante ne euh, dafa dafa tinga lu mel loolu mais état bi jóg saytu la. mu bëri loolu ñu ñu nax ci ay billets yu baaxul ndax bu ñu sukkandikoo ci ñiy dox ci jënd ak njaay amul nenn na ñuy def ba mën a ràññee bu baax bi ak bu bon. mën naa ni mënuma ko ràññee parce que xaw ma ko sax. mësuma gis faux billet li ñu waroon def mooy boutique bu nekk am détecteur de faux billet su ko defee loolu suñ ko amoon mën nañu dimbale wala au moins ñuy def boog ay calpe yoo xam ne dañ ci instauré faux billet ou bien de trucs comme ça pour ko mën a identifier balaa nga koy balaa nga koy jël. trafic phobie doon ab mbir bu lëmbee réew mi ndax lañu koy dégg fii ci Sénégal jéggi na dayoo bis doon yoon ba gën a gaaw ngir séddale fa lii di phobie kon mën nañoo jàpp ni bu ci bii mucculee beneen. mënu cee mucc. Thierno Thioune di ab économiste di ko xam ne xam-xam dafa màcc ci wàllu koom-koom ne lu ni mel buñ ci jël ay matukaay yi dina dem ba nasaxal koom-koomu Sénégal Thierno Thioune ñu teewlu ko ba tey ci micro Fatou Bintou Diouf. dafa nekk loo xam ne du lu bees yàgg na am euh, ndax buñ koy natt sax Sénégal at yi ñu génn euh, lu toll si ñeent fukki at ñetti milliards jàppoon nañ ko ci faux billets donc loolu mooy wane ni Sénégal vraiment mun nañu wax ni dëkku faux billets la waaye ñu fàttali rek faux billets li muy def ci économie bi njëkk bi mooy xaalis moom confiance moo koy laal donc bu faux billets amee rek. mën na wàññi crédibilité wu euh, économie maanaam dëkk bi maanaam nit ñi mën nañ bañ a amati confiance ci xaalis bi ba tax na am na benn loi bu ñuy wax ñun ci économie la loi de Gresham bi naan xaalis bu bon bi day dàq xaalis bu baax bi euh, ñaareel bi ci bi mooy euh, li ñu naan faux monnayage muy foo billet day indi liñ ñu naan incertitude maanaam ak ak ñàkk a ba tax na dana indi prix yi di yokk donc kon mu doon loo xam ne lu bon la ci économie. waaye li waral nag tey ñu samp bi mooy euh, dafa am maanaam ab woykat bu ñuy wax bu ñu jàppee xaalis bu bëri ci wàllu phobie euh, ma ma pour ma expliquer ko rek damay jël maanaam contexte bi ñuy bi bi kooku nekk naan ñu ngi koy tuddee showbiz. showbiz dafa nekk foo xam ni liquidité dafa dafa dafa am doole maanaam day xaalis bi war doon ko jaarale si. sphère classique financier yi ñoom xaalis bi maanaam liquide lañ koy def di ko jaandoon donc foofu day nekk kanaal yoo xam ni la propice na pour ñu mën fa def faux billets donc moo tax ba ma jàpp ne ñoom day doon lu yomb ñuy ñu fay gis loolu ñaan faux billets. foire internationale bu Dakar fa la ñuy jëm altine ji ñu weesu lañ ko ubbee euh, ñu dem ci foire ba nemmeeku ni am na si ay jaaykat yoo xam ne nekkuñ si biir ci lu wër euh, foire bi la ñu nekk di jaayantu. Euh, muy nag loo xam ne nañ gënalu leen ndax seen doole matewul ngir ñu jëlee stand euh, ngir mën faa jaay leneen la nga xam ne seen lañ ko fa mooy que daanaka dañuy yendoo jaay ba ngoon du ñu gis benn client bu leen ne ñaata euh, maamu jaabi gasama doxantu ji woon na fa ñu teewlu ko ci reportage solos foire ak taxawaayam ci askan bi ak koom gi mooy temu ñaar fukk ak juróom-benneel foire internationale bu ndakaaru foire bi tàmbali nañ ko niki gaaw bi ñu génn bàyyeeku ci ay gox yu bëri ñii di jaay ci wetu foire bi ñi ngi yëkkati yile kaddu. ñoo ngi nii nag di jaay fii ci foire bi waaye gisaguñu dara nit yi dañuy ñëw di laajte. maanaam daal doxagul daal ni mu waree doxee. xëy na nag fii ak fan mu dox benn mel fa cinq mille ñi nekk ci biir moo gën a cher parce que dañuy fay place il faut ñu cheral ko su du loolu du ñu am dara place bi dafa cher ci biir ñi ko mën a jël ñoo ñi am en gros suñu mu mënu ko faj soo ko fay doo am loo ñibbee paas boo ñibbee sax doo ko am waaw akara laay defar fataaya temps ak café Touba ak beñe yooyu laay jaay rek footaatu dafa ki amagum na waaye njaay amagu fi ah sant yàlla rek tuuti tuuti rek dama de xale ba tey at mu ne maa ngi fi foire dëgg yàlla macha allah sant yàlla même foire yi ndaw yeek yëpp maa ngi moom kaar kaar macha allah mooy na may xale yu ndaw yi sax ma gën a bëgg xale jigéen yi xale yu góor yi ñëpp fi la ñuy añee fi la ñuy ndékkee effort nag nag parce que xam rek affaire moom bon ñu client yu bari dañuy daanaka ci biir la sawar dugg ci parce que dañuy wax ni ci biir mooy gën a yomb ci biti mais suñu waree ci biir buñ ñu ko mën a fay quoi il fallait ñu mën a fa laal ci biti mën a taxale tuuti quoi mën a am dara ñenn ci ñoom sax ñi ngi rafetlu kaaraange bi fi am am na sécurité fu mu toll moom sonalaguñ ñu moom am na sécurité nag ndax dañu am benn gardien bu nekk wala nga dem guddi yëpp dañ koy fat daal takk ba mu dëgër euh, te pare ba pare bagage yi euh, kii njaay mi fa la ñuy dugal suñu bagage yëpp. FIDAK ab xew-xew bu rëy la di li nga xamante ne sax dana tax ba ci diiru ñaaru ayu bës jaaykat yi mën a wone seen njaay mi. dalal soxna Roqay Ndour mu dikk ak ñun ci xibaaru bitim réew yi. Afrique du Sud kii di Cyril na ci juróom fukk ak ñeenti conférence bu Afrique nationale congrès mu nekk nag ab ndaje ñu amaloon nag ca ndaje moom moomile ab discours bu am solo di woote rek unité jiital ANC di Ramaphosa ci ay kàddoom rek di wax lan la nam def ci réewum Afrique du Sud defaraat parti bi di ANC bokk na ci ak woo bépp doomu sud africain ñu ànd boolo liggéey ngir jëmale seen réew ca kanam dalal nag kii di Ramaphosa yi tamit ma ngay dalal yi. yi du mës a bi wala mu wàcc yoonam di rafet luy tamit liggéeyu Jacob ak ndono gi leen fi bàyyil ca Cameroun tey nag alxamis ñaar fukki fa ak benn ci weeru décembre ca Cameroun di bés bu am solo lool ci journalist bi di Ahmed Abba gannaaw ba ñu ko tëjee ñaari atikaso kaso tribunal bu Cameroun nag jiñoon ko ndax dafa bañ a yoolee ay jëfinu terrorisme ak itamit di lewal yu tukkee ci ay jëfi terorism jeexalee ci Espagne gannaaw tey naka ba espagnol yëpp naka booloo utali bureau de vote yi fas yéene voté gannaaw ba Madrid naka tegee loxo ci dëkk boobu di Catalogne mu nekk nag ay élection yu am solo ginnaaw bi réewum Espagne nekkee naka ci 40 ans de crise bu ñu sukkandikoo ci sondage yi ñu jot am naka ñaari jigéen ñi nga xamante ne ñoo amal ñoo nekk candidate foofu di Marta Rovira ak Ires Animadas nag résultat yi ñu jot amagul seere na lool na waaye naka fii ak ay 22 quatorze heures joxe résultat final yi. Euh, tàggat yaram football lañ koy tàmbali Ligue 1 sénégalaise wax ci programme cinquième journée bi dañ ko fas yéene joué ni ki gannaaw ëllëg ci samedi ji programme bi kon ni lay tëddee fu la ci stade Euh, ñu nemmeeku si nag derby euh, Petite Côte di dox ci diggante Stade de Mbour ak kii bi nga xam ne ni euh, moom moo di Mbour Petite Côte yéen nga xool kon table bi Génération Foot di ki nga xam moom moo jiite kon classement bi mooy fas yéene dalal équipe bi di jàmbaar bu sali Sonacos di fas yéene dalal ak jàmbur bu Louga GFC di dalal Casa Sport Stade jigo Djigo bu Pikine foofu ñaari match yi ñoo nekk ci programme bi. jaraaf mooy laale ak douane ñaari tali di laal équipe bi nga xam ni moom moo di dakaar Sacré Cœur Linguère di daal équipe bii di euh, Tëngëj FC. Euh, loolu yi mu ngi soxal Ligue bu dee lu soxal Ligue 2 sénégalaise la AS Pikine mi nga xamoo jiite euh, classement bi moom nag dana déplacé wu dem fekkee dem fële ca Ndar daja Ndar Géej loolu kan nañ jàpp ne ni ki aljuma ji lay doon. stade Caroline fay di fas yéene dalal tamit ñaari duel yu am solo dox ci diggante Kër Madior ak ASC Fatick euh, mu am tamit yeneen i ñaari match yoo xam dañ ko fas yéene jouer fële ci stade Alassane Djigo renaissance bu euh, renaissance kon mooy laal ak équipe bii di Etix Yégo di laal ak équipe bii di Port stade Fodé Wade Kayor Foot moo fay dalal équipe bii di Africa Promo Foot euh, ca Fatick jamono di fa laal équipe bii di US Gorée Euh, bu dee nag ci stade du bari bu Guédiawaye olympique bu Ngor euh, moo fay fekk ji équipe bi di Duc jeexale ko wàllu athlétisme wax tamit ci li nga xam ne ni euh, ab cross la goo xam doon nañu ko amal mu doxoon kon ci corps yi nga xam ñoo fa nekkee waaye nag ñii di sapeur pompier kon ñoo ko mujjee gàddu mu doon nag loo xam ñu ko doon def fële ca place Faidherbe nekk fu foofee ca diwaanu Ndar lu jëm nag ci compétition boobu ak solo si nga xam ne ni am na ko Euh, colonel Mbaye Cissé am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. ah tey moom ngeen ko gisee dañ doon euh, def euh, jongante boo xam ne daw la woon xam nga nag daw dafa xaw a métti tey corps yi fi nekk yëpp maanaam jamee ko ci corps militaire yi fi nekk yëpp sapeur pompier police gendarmerie ñoom ñëpp jongante nañ jongante bi nag. nekkul rek pour ñëw pour gagner médaille lu ñu taxoon jóg mooy ñu gën a am euh, gën a woone suñu ànd suñu booloo suñu suñu kóolute diggante bi am ci euh, force de sécurité yi nekk ci biir région yi ngeen gis ko mu nekkoon course yu neex rafet euh, groupement sapeur pompier moo gagné douzième bataillon topp ci e deuxième bataillon topp si mais comme ni ma ko waxee sànq rek problème bi di woon ñëw pour gagner problème bi ñëw bokk la wone ne ñun ñëpp benn lañ ñu ngi ànd ci esprit bu rafet di ñaan rek esprit boobu continuer ba deux mille 2018 compétition yi ñu war a dëgmal yëpp ñu def ko ci yoon. di leen jox rendez-vous incha allah ba année prochaine foog naa ne bii paa nag euh, PC zone moo koy gagner parce que man sama bopp damay damay damay sumee wàcc si géew bi. <laughs> loolu di ay kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci colonel euh, Mbaye Cissé ci kàddu yooyu sax ci la ñuy tàbbi seeg yéen ci ñaar lu xaju xibaar yi tey jii benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dalleen ak jàmm gannaaw fukki atu yàlla ak juróom benn ci génnub àdduna Léopold Sédar Senghor socialiste ña ngay xiccoo ndono li fi Léopold Sédar Senghor bàyyi muy PS kenn ku nekk ne mana yéena cabinet Ousmane Tanor Dieng ak ñamu àndal bàkku nañu ne ñoo moom ndono li Khalifa Sall ak ñamu feggool ne déetawaay ñooma Walf Quotidien Ousmane Tanor Dieng ak ay ñoñam jot nañoo neexal njiitu réew mi Macky Sall dem bay méngale Macky Sall ak Léopold Sédar Senghor daal dinañ fa kañ njiitu mi Macky Sall ne mooy ki donnu Léopold Sédar Senghor ci doxalin yéena cabinet Le Quotidien ne Khalifa Sall dina jot ka doon nawelam ci weeru décembre gi ñu ne te mooy génnee ko ñamu àndal le quotidien Ousmane Tanor Dieng jiital parti socialiste jot na cee wooteef ndajëb daar daar samedi gi ñu jëm ngir mun a tàqaliko Khalifa Sall ak ay ñoñam libération ne moom xalifa Sall amagul liberté ca lañ koy tuumaal ci mbirum kees d'avance bu mairie bu Ndakaaru yéen cabinet moom maire bu Ndakaaru yéen mooy procès bañ a am daal dina sàkku ci chambre d'accusation ngir ñu neenal toppe gi direct info ne ña toppoon Abdoulaye Wade te ne woon ci PDS ñu bari ci ñoom ba nañu njiituró ba woon Abdoulaye Wade partem gi tas tasar direct info ne tey ma limal leen ñi àndatul ak Abdoulaye Wade bokk ci Farba bana ba na Abdoulaye Wade Samuel Sarr ba Abdoulaye Wade Pape Samba Mboup ba Abdoulaye Wade ba ci Serigne Mbacké Ndiaye àndatul ak Abdoulaye Wade ak ñeneen ak ñeneen ba ci Abdoul Aziz Diop mi tàmbalee feggoog njiitu réew mi Macky Sall cappale ba yéen a cabinet moo ne de Abdoul Aziz Diop moomule jege ñaale Omar Sarr la direct info ne xoolal Awa Diop bu PDS tey doon na ndey dikke première dame Marième Faye Sall daw coow ci direct info ne PDS ci waxtu wi ñu ne lu metti lay dund góom la am ndax mun na cee génnam déet 24 heures ne lii di guerre maanaam corruption génnagul ci réew mi jógagul ci réewum Sénégal bu ñu sukkandikoo ci waa OFNAC gannaaw xayma gànca def natt gànca def xamle ne Sénégal ci jamono ji ger gi jéggi na fi dayoo lañ ca xayma ci koppar toll na ci téeméeri milliards ak fukk ak juróom-ñett lu jege ñaari million gu ñoo cay yëngu ci mbirum ger ci biir yene kaabidi 24 heures waa OFNAC ne ger gi ni mel ca Jurbel la gën a wulle ñaay Vox Populi ne ca diwaanu Jurbel fa la ger bi uppee diwaanu Sédhiou moo ca topp OFNAC jot na ci amal xayma bu yaatu ne boo demee ca Bawol téeméeri doomi aadama yoo jël fukk ak juróom-ñeent yaak lu teg ger la ñu dundee boo demee ca Pakaaw téeméeri doomi aadama yow fa jël fukk ak juróom-ñeent ya ger la ñu dundee l'observateur ne kenn du police ak gendarmerie ñoom ñaar ñii lee fës nañu lool ci mbirum ger ba ci njàng meek njàngale mi ba ci paj mi ger gaa nga fa yéen a bi di las ne ger gi ni mel maanaam corruption mu ngi fi bëgg a ëppi loxo li mu yàqal réewum Sénégal toll na ci téeméeri milliards ak fukk ak juróom-ñett las ne bu doonoon rawante kon ñu ne diwaanu jurbeel moo jël raw gàddu moo gën a fës ci wàllub ger Birane Seck bu Forum Civil addu ci biir yéen bi xam le ne OFNAC duñ ca jéem lenn duñ ca jël benn matuwaay ngir ngir jëlee fi corruption yéen a kaabi di enquête amal enquête gu yaatu ci cool xaalis gu bon maanaam lii di faux billet yéen a kaabi ne fental nañ ko way ci réew mi artistes yi gën cee fës lool bu weesoo coowal faux billet ya woon ak coon balago sek woykat bii di maam góor jazaka dundoon na fi coowal faux billet tey rappeur bii di ngaaka belende ñu teg ko loxo ndax mbirum faux billet njiitu réew mi Macky Sall ay kàddoom ci enquête jot na cee addu démb ci ndajeb conseil des ministres ne matuwaaya ca war nguur gi dina ko jël ne daañu taral daan yi ci képp ci jàpp a moom lu tolloog juróom benn million yéen a cabinet Ngaaka Blindé googule setagul ndax ab gérant agence Wari gén naa suruxal Ngaaka Blindé mi mu ne jox na ko lu toll ci 80 mille réew mi quotidien njiitu réew mi Macky Sall àdduna ci ne nguur gi dina ci jël matuwaay ngir xeex xaalis bu bon maanaam mbirum faux billet ne daañu diisal daan ya démb la ko xamle ci ndajeb conseil des ministres di jéegul rek ci dog-dog boobule euh, ñu ngi si jéegaloon bu baax a baax euh, ñu ngi ma xamal ne mbiru machine la kon mbokk lii moo nekkoon li furuse woon ci wàllu xibaar di sant di gërëm bu baax a baax Demba Thiam mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kàddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba kon mbokk yi yëndoon jàmm